ñun avons dégg nañ li président message message bu am solo la 31 décembre amul noppalu amul daw amul découragé taxaw liggéeyal réew mi jël problème yi en charge jàngoro bi ci matal setal raxasu jël distance yi bi ci administration bi gouvernement bi di di di teel du gudé wàcc ba mëna jël en charge li nga xam mo fi né ndax économie Sénégal suqaliku amnañ ci yakar parce que président Macky Sall engagement am la sénégalais yi nekk ci gouvernement bi ak administration bi un engagement lool la maire yi nekk ci commune bi seen engagement lool la autorité administrative lool moy mooy seen engagement yéni donc donc len leen wa télévision